dinaa ci sawar a wax ndax depuis élection 88 le président Abdou Diouf newoon fi ñuy ànd ak moom di politique Souleymane Ndiaye Brin leader yi bari fii à Thiès moo leen formé ci politique. ñi daj ci lu ne gis ci lu ne nag booba ba tey ba parti socialiste euh, wàccee dama caa jooy ba feebar na ngeen ko laaj Souleymane Ndiaye Brin wala Tanor Dieng ñooñu ñoo daan ñëw fii bu ñu daan ñëw ñu ànd ak ñun maison du parti congrès ñiy dem guddi dem bëccëg ba mu daanoo APR ñëw fii le président Macky. ma xool jikko mu neex ma xool compétence am xool noppeem xool ak liggéey bi muy def daal ma ni kii daal doy na ma naa ànd ak moom ba ma àndee moom ba tey nag am na leader bu ma daan àndal muy le ministre Thierno Alassane Sall moom laa daan àndal mu nekk ku baax ku tranquille ku jàmbure ku nangoo liggéey waaye la tax ma won ko ginnaaw mooy du ma liggéeyal ku ma dul recevoir du ma liggéeyal ku ma dul gis entourage politique bu Thiès li ko yàq mooy entourage seen entourage yi nu fiy bàyyi di dem koo soxloo sa ministre boo soxlaa sa député boo soxlaa sa directeur doo ko gis ndax seen entourage loolu moo ma naqadi moo tax booba ba tey ma toog téye sama njàmbur léegi ba ma xoolee biir ba bi te xam ne daal samp sama ndënd moom jot na ma ne naa samp sama ndënd loolu daal moo taxoon ma def lii. fii sama mébét mooy xanaa jàppale askan wi rek muy góor muy jigéen parce que Thiès ku ne xam na ni metti na kilis bu metti moo fi nekk ku nekk nag ne mana te ñi naan man a ñëpp mooy yi ñu am ñun ñi nga xamee ne ñoo nekk ci bi suñu woyof ñun ñu woyof mbubb yi suñ ko amoon kon président de la république xolam seet mais ñoom ñi nga xamee ne ñoom nee nañu ñooma kenn du leen gis kenn du leen dégg wërsëgu leen yàlla jox jàppale wuñ ci jeunes yi jàppale ci jigéen ñi nu leen ko fas yéene jàppale xanaa fa emploi am rek ñu dugal leen ci ak jox leen ay financement te nag tooguma woon ci samay moyen bopp ak sama connaissance bopp yoo xamee ni dama doon dem ci ñoom ñi may wutal ay poste euh, jigéen ñi def nettoyage ci service yi vraiment ma ciy sant tamit sama càmb yi nga xamee ne ñu ndey bokkuñu baay ñu doon ma ci jàppale di jël jigéen ñi may dem ci banque yi aussi di leen wutal ay financement ñuy fay loolu yëpp ngir ji bëgg nit ki bu lay topp danga koy mënal dara koo mënalul dara mu bàyyi la ci ginnaaw jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel bari na premièrement ku ci am sa leader boo ko bëggee gis doo ko gis mooy premièrement ñaareel ba ñàkk nekk benn leader yu Thiès yi ku nekk kii awee ni kii awee ni moo tax li ñuy yóotu mu xaw leen a jafe boo bëggee li ngay yootu yomb la da ngay yéen ñëpp ñoom ñëpp dañuy xàccandoo di dóorandoo chômage bi metti na metti goo xamee ni ku ci nekk poste ba nga yor soo doon sëq ci koñ bu nekk ñaari xale sax kon chômage bi jóg fi wala financement yi nga xamee ni financement ségrégation la am na fi muy yem ñu tasaare ko jox jeunes yi jox ci jigéen ñi jeunes yi koo ci jox mu mu créé poulailler am wala mu def leneen ak leneen ñi jàngul ñi jàng yor seen diplôme yi nag kenn xamul nu mu toll ku ci nekk day jooytu xale yi encore xale yi ndaw yi amul ay bulletin de naissance bari na man danoo ñëw ci man di jooytu guddi jooytu bëccëg foog na ni man ca mairie ba ne wala fen waaye damay sant yàlla parce que yàlla may na ma nit ñoo xamee ne du ci terrain politique bi sax cas social yi aussi bari na tout récemment sama benn part da doon andi amputé tànkam hôpital régional tey la fa am 10 jours ba mu ñëwee wax ma ko ni ma dama la bëgg nga jàppale ma ci samay moyen bopp laa demee ak nit ñu baax ñi ñoo ma doon jàppale mais du ci du ci parti politique ba ñu amputé tànkam. kaaw fi borom aussi mi ngi toog fii ci jotaay mu amoon fi borom wax ma ko gisuma ku ma koy wax ma topp sama relation ak nit ñu baax ñi mel ni yéen rek ma ci jàppale ba yàlla def ca jàmm. appel bi duma def lu dul rafetlu ko rek xanaa jéem a seet tamit ñi nga xamee ne ñoom la fi teg ñi tëdd ñareet ku ñëw jaar seen kaw. kenn bañ yëkkati sa bopp kenn bañ kenn bañ ni mana ndax président moo leen tànn teg fi tànnuñu seen bopp ndax ñu mel ni ñoom ñi ngi fi dàqu ñu leen a jàng ëpp ñu leen expérience politique. fu ma xasee eh, bëgg a jaar pour Thiès émerger xanaa dégg topp ci ginnaaw la président Macky sàll ak keneen ku ma tàllal loxo rek bu nu ma jàppalee ci développement développement mooy lan soxali jigéen ñi jàppale leen ci lépp. formation yi jàppale leen ci fi ay financement fi jot a def ci Thiès waa def li ma fi jot a def mooy lu dul am na ci ñoo xam ne wutal naa leen ay machine wolukaay département bi am na ci ñoo xam ne aussi fii ci jotaay bii ay financement laa leen wutal ñuy liggéey di fay wax leen ak leneen ak yow xamee nit aussi wax dëgg yàlla moom fu ma gis poste yóbbu leen fi ñu liggéey ñoo xamee ne damay dem ci magasin yi ñu ñu garanti leen ñu jox ma ay marchandise ma jox leen ñu dem jaay bu ñu jaayee dem verse ci samay moyen bopp bu tabaski jotee ma def opération mouton dem daral am na lu may def ak ñu jox leen ay xar ñu dem jaay bu ñu jaayee dem verser. sama mébét loolooy sama première mébét ndax comme doon sa sago ku ne nga doon député à l' nationale ndax parce que ya fa nekk xëy na bu ma dàqee jàng ëpp ñu ma expérience politique. te am naa nit ñi daal damay sant yàlla ndax nit ñi mënu ma leen a fay aw ma dara bi su ma wootee ñu wuyu ma te bu du woon li ngeen pressé li ngeen fekk fii tabaar fakaal la wala ngeen toog tuuti ngeen xool. donc kon oh, pare naa moom maa ngi taxaw <laughs> te di leen xëcc nag yéen ñëpp. <laughs> ci kenn gën waaw président daal laa tàllal samay loxo waaw. Mhm. Mhm. boo naree campagne mhm. a yegg ñoom peut xanaa ci kaw moyen yi ma yaakaar ginnaaw yàlla président bu ma dooleelee moom ma dem waaw à samay propres moyens waaw